waaw assalamualaikum mbokk internet yi suivre lamine TV nuyu nañ leen jaajëfal nañ leen ah tey nag ni ngeen ko gisee nii ñu ngi fii ci Nianing ah Nianing si Petite Côte bi diggante Mbour ak fi nga xamante ne moom mooy Joal Fadiouth Nianing lañ ñëw tey seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibeuri Pibeuri nag ndeysaan nekk benn lieu ba nga xamante ne ay xale yu xarañ ñoo fi ne di liggéey li dem ci flocage sérigraphie ak yeneen ak yeneen ah dañuy dugg si biir. jox gaay micro bi ñu gën a expliquer li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ay tableau yi nii ñoom ñëpp dañ koy joob ah caméraman ñu dugg si biir pibër yi jox yi ñu yaatal affaire yi ni muy demee jaajëf ah. fii mooy pibër yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette ah carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job Aïcha Gaye ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci Pibéry yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom la ñuy defar fii nii ci ci place bi ah. teel ñu ko doon euh, expliqué leen gars waa Sénégal waa jaspora surtout. ñiy suivre Lamine TV di ko béggee bu baax. donc fii mooy Pibéry yi ah. donc euh, li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp. ay flocage t-shirt. moo nekk nii. ay dimension bu ne am na taay bu ne ci xalé ba ci mag li aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC sen photo pour sen photo salon yeeg yoyu donc li da ngeen koy am euh cag-cag même pas une heure de temps ngeen jot ci ah voilà légui euh, aussi bu loolu wesso am nañ euh, li nga xamné moy mooy pibori mag li aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc euh, magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte waaw loolu la Pibory defar restaurant yi mhm. am ngeen aussi lépp li nga menu mhm. menu yaa ngi dañ koy defar mhm. tout ça voilà dañuy defar li menu ainsi de suite ay panneaux publicitaires carte visite ay bannière ay euh, Mhm. ay porte-clés ay cases. Mhm. tout cas dañ koy defar fii. nii ci support ak yan support di bind parce que dégg naa dañuy ci ay oto sax. waa dañuy bind ci oto. Mhm. dañuy bind ci seetu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre. ay cases ay cases ay plateau ay loolu nag aussi mu ngi euh, gën a fës ci Saint-Valentin bi. ñi nga xam ne dañuy bëggante dédié Lamine TV benn. kii kiiwam rek jox ko fansam jox ko kaas ne ko maa ngi la ciy béggee bu baax bu ñëwee fii dañ ko koy bindal donc voilà c'était ça embalage bi aussi am nañ beneen euh, kii support bu ñuy liggéeyal mooy jërëjëf boo leen ñëwee bu ñu leen jaayee ba pare pour avant ñu leen koy livrer moom moo koy euh, emballé joxlen ko ci anam yu mucc ayib. élèves aussi pour impression ay photocopie yoy non bien sûr photocopie dañ koy def euh, impression numérique le li nga xamné moy tirage imprimante aussi dañ koy def A4 A3 A5 ba A2 aussi dañ koy def moy nga xamné affiche bi gënal ngand A2 bi loolu yeb dañ koy def voilà. aussi euh, Mayo Sénégal yi ngeen gars na ngeen bi am étoile aussi disponible na pi bëri. Ah, yaa ngeen waaw di bëggewaat Lamine TV bu baax ah, ci visite bi. Mhm. Euh, ci confiance bi aussi. Mhm. parce que gis naa gis nañ liggéey bi muy def bu baax ci Petite Côte bi. Mhm. ñoo ngi koy jaajafal mu doon ay Lamine TV yoo xamante ne. fu ne lay dekk. adresse bi ak numéro téléphone waaw adresse bi fii euh, mu ngi nekk en face. Euh, centre de réadduction centre de réadduction donc numéro téléphone bi mu ngi nekk cent 77 275 96 75. fii ci Nianing fii ci Nianing. diggante Joal ak Mbour. ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. aussi mun commander ngeen livrer ko. exactement fu waay nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci incha lu gaaw. jaajëf jaajëf gars billahi mina rajim bismillahi rahmaani rahim tout droit. yéen mbokk internet yi suivre ci Lamyn TV nuyu nañ leen ziar nañ leen bëgg nañ leen bu baax baax di leen di wax ah rang muy abonné ah yéen ñi abonné gul abonné leen ngeen laal cloche bi affaire yi gën a yaatu lépp luñ tuwale si ngeen bokk si ñi koy njëkk a seetaan tey mercredi le 13 juillet 2022 ñu ñëwaat ak yéen journal di mbapat premier journal après tabaski bi ñu leen di jégalu ak di leen di baal di ñaan yàlla yàlla na yàlla boole baal ñu fekk koy at yu bëri te tal ko voilà. journal di mbapat balaa ñu ñëw ci journal bi ñu ñëw ci trophée meilleur lutteur de la semaine semaine bële passé Thiaka Faye moom moo ko jëloon jël ko. jël trophée bi moy bi mu jël lamb Iba Mar bi bu lolou wesso pour trophée meilleur leader bi semaine bi dañuy nominé wat ñetti mbeur si lamb yi xew ci tabaski bi ñetti mbeur yoyu di général bu Malika ak nga xamne mom moy Pape Maroon sa ko xam-xam bu jëyin ak biram bi sin sen bam ne bi baan voilà ñetti mbeur ñoo ñoo gëna a ci lamb yi passé ni ci tabaski bi léegi ñëw ak ci li nga xamne mom moy résultat wu lamb ji jouru tabaski fi nga xamante ni moom mooy joyin amoon na lamb Pape Maroon sakku xam-xam moom moo ko jël à domicile jël ko ci kaw Ngor Sarr Ngor Sarr tamit waa joyin la Babacar Tine moom moo jël poids léger yi foofu ca joyin jël ko ci kaw Modou Maroon lendemain tabaski fi nga xamante ne moom mooy sum loog amoon na lamb sum gaskel moom moo ko jël jël ko ci kaw pa eli bu sum loog moom pa eli dafa daanu final gaskel bu palmare moom moo ko daan Fatick aussi ci lendemain tabaski bi mo nekkoon le 11 foofu ca fatik general bu Malika moom moo ko jël jël ko ci kaw njangar bu campement Modou teri bu pontu Sarène moom moo jël poids jël ko ci kaw mbir njool bu zoal sur lendemain tabaski bi le 12 juillet bi fi nga xamantene ne moom moo Diouroup amoon na làmb Biram bisin sen wala Mbam ne Biiwaan moom moo ko jël jël ko ci kaw Pape Maroon Sakku xam-xam bu join. ordinateur bu Saly moom moo jël poids léger yi jël ko ci kaw CFA CFA bu som jaxaaw fi nga xamante ne moom mooy jaxaaw aussi amoon na lamb mooy lamb bi waa fan si club Boucar Ndour organisé woon mais lamb jaxaaw bi dafa yàqu lamb ji mujjul egg cause yi nag lii la lamb ji amul sécurité waaw gendarme mu nekk fa policier nekku fa voilà te foule bi nit ñi bëri woon nañ tellement ba xam nga ñu organiser woon mënuñ leen maîtriser gars yi envahir géew gi voilà ñu xam ne làmb ji mënatul egg looloo ko yàq ñu ñaanaat rek ñi nga xam ne ñoo organiser làmb ji yaakaar naa seetaan gi seetaan ngeen vidéo yi dëgg ngeen amateurs yi li ñu wax ma dégg ngeen aussi li Boucar wax problème mu sécurité bi jar na ko lu mu cher cher cher ñi organiser na ñuy fay li nga xamante ne moom mooy waa gendarmerie ñu mun a ñëw sécuriser làmb ji amateurs yi aussi wax dëgg fa yàlla na ñuy dawal discipline parce que xam nga dëgg la nag lamb ji amul sécurité rek warul tax lu neex waay muy def wax dëgg fa yàlla nañuy dem ci discipline yar ak teggin xam nga ñu organiser ko suñu biir xanaa léegi la ñuy wax lamb si àll bi di wax sécurité mais bu njëkk loolu amul woon organisateur yu doon gérer amateur yi ñëw toog bégee lamb ji tas ñu ñibbi mi ngi noonu donc responsabilité bi li ci ëpp dañ koy teg ñi nga xam ne ñoom ñoo organisateur yi ndax ko organiser lu doroog lamb 3 millions mosul am ci jaxaw nga tuddee ko le ministre motar Ba ah. xam nga ne lamb jojo ak lendemain tabaski bi ni nit ñi dañuy jóge Dakar ak fune ñew ci village yi dañuy xaar lamb ji lamb ji fa mu bëri nit waron nga jël say matuway donc organisateur yi ñom ñoo nek les premiers fautifs waye amateur yi aussi mën nañu ñoo dal mi ngi non lolu mo xew fi nga xamante mom moy jaxaw xaalis bi bu len ci am inquiétude wa CLG bi nek fofu partager nañ ko mbeuri poids léger yi Lamine Petit Sélé taxawon na final benen demi final yi nekkoon Bas jonne bu Mbour ak Bulldozer bu Malika poids lourd yi 8 mbeur yi ci desoon ndax bu woon nan préliminaire 8 mbeur yi ci desoon ñu seddale leen xaliss bi mise bi lolu amon ca jaxaw buñ fa joggé ñu dem fi nga xamantene mom moy joyine aussi ci sar surlendemain bi la doon jeex fofu fils de Batini Sigi moko jël mais xawma waji mu daan final ni mu tuddu ngeekoox ca kaolak aussi ngeekoox saalum amon na lamb fofu boy saalum mom moko ko jël jël ko ci kaw batista bu kaolak Diofior am na mbapat bu fa amon sini bu barni mom moko ko jël jël ko ci kaw fa de bu yor Njanda aussi mbopat bi fa amon tieb bu Joal mom moko ko jël jël ko ci kaw la djouf bu Njanda loolu moy information yu jotone ba tay ñu wax leen ne mun ngeen dugg ci commentaire yi ngeen voter diggante bi Mbissine seen Pape Maroon Sakku xam-xam ak général bu Malika pour trophée meilleur lutteur de la semaine ah. programme mu lamb ji nii la demee di 11 au 15 juillet fi nga xamante ne moom mooy jir ndax am na lamb jir ndax 1 million lañ fa teg ak benn nag le 15 juillet Patar am na lamb Patar Sine 1 lañ fa teg ah le 16 juillet fi nga xamante ne moom mooy Mbaling moo am lamb Mbaling 1 million lañ fa teg. le 14 wala 17 juillet fi nga xamantene mom moy nga jor amna lamb 450000 lañ fa tek 17 juillet ca kaolak combat lutte avec farab combat beure d'or touba kuta bourou salum ak fils de batlin sigi ñom ñoo fay beure ñaari mbeuri lit simple ñom ñoo ñom lañ fa bolé combat beure d'or mu doon lo xamne faaw mu neex ndax touba kuta ak fils de batlin mi ngi nonou le 23 juillet aussi ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye caatu Robert El Hadj Ndiaye caatu Aïda El Hadj Ndiaye John Lass El Hadj Ndiaye bu Joal moo am combat fu muy bëree ñu ne Dakar arène nationale doomu Joal bi El Hadj moo am combat nee na mu ngi ciy woo waa Joal di ci woo waa Petite Côte di ci woo mbokku séeréer di ci woo waa lutte simple di ci woo ñëpp ñu def mobilisation ñëw arène nationale samedi le 23 juillet El Hadj Ndiaye mooy bëre ak Robert le 23 le 23 juillet samedi le 23 juillet fi nga xamanteni mom moy fatik amna lamb 5 millions lañ fa tek Assane ndjay Bol production mom mokoy organiser samedi le 23 juillet ca fatik, buñ fa joggé wala ba tay samedi le 23 ak dimanche le 24 fi nga xamanteni mom moy ndangan sambu amna lamb wa Fata production ñom ñofa woté wa Fata production ño woté ndangan sambu tegal nañ bari 3 millions ci dimanche bi tamit le 24 le 24 juillet fi nga xamante moom mooy Dakar am na làmb Jax moom moo fa oote tegal na mbër yi 5 millions donc mi ngi noonu loolu lañ jotoon ci programme mu làmb jaajëfal nañ leen tout droit rang muy abonné bàyyi jaal caméraman bi kontaan ci yow bu baax a baax. Lat Dior Diop borom Diouroup le caayaneur yëmbal. Je nañ la bu baax kontaan si yow bu baax baax ah. tout droit ñu présente leen BNS électronique auto yow mi yor auto lépp loo yitewoo ci lu dem ci installation gadget électronique maanaam ay appareil de géolocalisation GPS ya la décoration intérieure avec lumière d'ambiance ma ne ay lampe LED lépp loo bëgg ci sa auto ay réinitialisation de système électronique lépp am na fa da ngay dem yóbbu sa auto ak façon auto bi mu ñoom ñoo koy jaay te ñoom ñoo koy defar ay xale yu xarañ mën seen liggéey macha allah woote leen ci numéro boobu affiché ci suuf ndeysaan ngeen dem waa PNS électronique auto defaral leen seen oto ba mu yànji te ànd ak sécurité.